waaw asalaamaaleykum waa Manufacture maa ngi nuyu ñi fi daje ñëpp di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo président Thierno Alassane mi nga xamante ne ñu moom dañu àndal ñëw fi di nuyu sama frère Ablaye Dieye ak ñi mu àndal ñoom Ahmed ñoom ñëpp ñoom Thiam ñoom ñëpp maa leen nuyu ci nekk sa tur ak sa sant di féliciter l'initiatrice de cette cérémonie muy Aïda mu dajale tey c'est-à-dire il marqué un point parce qu'il a réussi à au moins dajale ñoo xam ni ay doomu Cees lañu bokk bëgg-bëgg pour Cees jëm ci kanam je pense que ni tey loolu c'est quelque pour lu mu réussir di ko féliciter di kontaan sur sa personne di nuyu staff bi mu àndal ñëpp ci liggéey bi nga xam ne ñoo ko doon dox ñëw seet si ñu ñu waxtaan ci ñun ñep tënkandoo ko da xamni ni rek ak ñor comme l'habitude diko ko président Thierno di waxe biñu ñuy dugg à l'entrée maa ko dégg mu nan xoolal manufacture bi ni mel c'est vrai que ni les arbres sont sèches ni gis ay kàmb fu nek ken xamul lu muy ndiroo or que dëkk ñëpp xam nañu développement dëkk artisanat da ci bok moi de mon côté en tant que acteur de développement et social kees ñep xam nañ ma taxaw naa fii taxawati ci beneen mu lu ci bërëb bii ñu taxaw bokkook ayda ak ñoom ñu àndal ñëpp biñ ñu woowee li njëkk a xalaat mooy que ni toujours dañuy ci lañuy ñuy ñu ñun ci la mën a participer pour jàppale askan bi man ku ma xam xam ni damay yëngatu ci mbirum suuf rek laa yëngatu bi ma jàppee ni kees dafay tëb war a dem ci yeneen ko te yi xam ne day nekk ay gox yu bees waa kees war a tuxu li ma njëkk xalaat mooy xàccal leen fa benn terrain

pour que y ait une maison boo xamante c'est pour les artisans à l'entrée de Thiès kuy dugg Thiès xam ne am na fi kuy génn Thiès xam ne am na fa ba pare ngeen am ko ci biir nit ñi fi nit ñi tabax je vous remercie et je vous félicite tous merci. salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu mbok Thiès mbok aar yi di nuyu mboolem niñ fi fek mais di jiital ñu ñu muy président Habib Kane. محمد الحاج محمد الحبيب كان باسكو حبيب كاسيتين عرب موي خريط جابناني ابيب خريط نييب لا وايي تور بي دغ محمد لا ما شاء الله موي لو ولا لوي يعني خاموكو لول مو نيك تي اكتام كون بوك ابري دي نيو ايدا بريزيدنت ci di leen félicité ñu ngi nodd waaye ci ki bi lañu bokk di leen félicité ci initiative bi ngeen jël ci rassembler artistes yi de toute catégorie boole leen fi nga xam ne moom moo waroon nekk xolu aaru Sénégal ak Thiès muy manufacture des arts décoratifs xamné xam ne yu ma ko damay fàttaliku président Senghor ci bopam ñun ba ñuy jàngeen nekk Croix Rouge 10 dixième fi à côté mu ñu fi visiter gëmoon aar lool c'est le dernier président artiste j'allais dire de l'Afrique ou du monde moom lool ñepp ko koy reconnaître bu manufacture bi taxawé mom ak André Malraux André Malraux le ministre de la culture de De Gaulle immense écrivain André Malraux immense mondialiste être humain remarquable nga festival des arts nègres le le France yabalone mu un discours mémorable André Malraux ak avons fait ñoo discours mémorable Senghor ba ñu taxaw manufacture était une ville de culture une ville d'art ñoom Pape Ibra Seck taxawal fresque ba place euh, de la mairie nga xam ne ay tànganaak cantine ñoo ko wër ba nga xam chef d'œuvre boobu nekk foofu mënoo ko gis ndax ñi leen wuutu ci kanamu dëkk bi parce que cette ville Senghor fii le maire de Thiès ñu bari xamuñ donc de Senghor au maire actuel de la manufacture des arts à la manufacture des arts actuelle, c'est une décadence et une chute sans fin pour Thiès. Il appartient aux Thiessois et aux Thiessoises Mon Thiessois yi ak waa Thiès nous ñoo war a xam lan la Nous bëgg ak fan nous. Nous bëgg a jëmee seen dëkk loolu fi parenthèse donc nous avons fait fekk Nous di particulièrement ñi nga nous.

parce que daf ma fàttali lu bëri Comore dund na fa am lu wax ak vous ah, donc euh, c'est une agréable soirée que nous dund mais di remercier particulièrement Abib, Mohamed El Habib El Haj Mohamed El Habib <laughs> ci geste bu mu def pour les artistes ndax wax ni vous ngi soutenir c'est facile mais soutenir ba nga xam ne nit ñi ni soutenir nga loolu mo gëna difficile mo gëna jafé donc Habib